salaatan taftax lana biha abwaab alrida waltaysir wa tuxliqu anna biha abwaab alcharri waltacsir wa taqdi lana biha jamica alxawaaij wa takuna lana biha waliyan fi ldunia walaxira anta waliyuna fa nicma almawla wa nicma alnasir ayuha almushahiduuna alkiram fi daaxili Sénégal wa fi xaariji alwatan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 di leen ñaanal yàlla jàmm ak sutura di ziyaara ñi ci hôpitaux yi te wér di yàlla na leen yàlla delloo seen sago di ziyaara it ñi nga xam ne ñii dañoo nekk bitim réew di daan seeni doole bëgg lañuy ñu indil seeni njaboot yàlla na leen ko yàlla yombalal ñi ngi ziyaare kilifa gi nga xam ne gi mooy kilifa kër gi di ko ziyaara muy Alaaji Youssou Ndour di ko ziyaara di ziyaara Mamadou Ibra Kane di ziyaara it Alassane Samba Diop di ziar directeur Sow di ziara eh, Birane Ndour ñoom ñoo yor kër gi di ko doxal di ziara Ndiaga Ndour di ziara Bouba Ndour ñoom ñëpp eh, fàttewuñ ci kenn di leen ñaanal yàlla jàmm ak sutura fi ñu bëgg àgg yàlla àggale leen fa sumb yi sumb yàlla na ko yàlla mottali eh, ñaanal leen nañ leen ko ca màkk ba ñu demee ñaanal nañ ko fii bi ñuy ñëwee yàlla na ko yàlla def ñi nga xam ne ñi dañoo wàññee ko ci Muna yàlla na leen yàlla xare aljana fi ñu jëm yàlla na leen gënal fi ñu jóge mbir yi yëpp mbir yàlla la yàlla moo ko bëggee noonu ndax huwal faal li ma yurid yàlla mooy def lu ko neex te kenn du ci man dara kon jaam yooyu nga xam ne yàlla jël na leen ci mën a yàlla na leen yàlla yërëm yàlla na leen yàlla xare aljanna yàlla na yàlla def ñëw wàccuwaay ci jannatul firdaws wa ma zalika ala bi aziz te loolu du dara ci yàlla Euh, mbokk yi su ko defee ñu ngi dellu siwaat kal euh, ginnaaw bi ñu ñaanal réew mi ñaanal kilifa réew mi ñaanal kilifa aada yi kilifa diine yi euh, yàlla na yàlla def jàmm Sénégal defal ko képp ko fi yeewoo bi ahsanil wujuh ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñëwaat ak yéen kal aadati seen numéro yi nga xam ne moom ngeen di ànd ak ñun muy 88 628 04 05 Euh, ngeen bàyyi ci xel 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 wala ngeen ànd ñun ci 00 221 33 841 22 99 kooku mooy numéro ba bitim réew ñi baamtu ko ngeen bàyyi ci xel 00 221 33 841 22 99 muy numéro bi nga xam ne bi waa bitim réew mën nañu ànd ak ñun ci. yooyu le numéro ci seen émission tafsirul ahlam euh, wa nahnu kal aada ma zilna nashkurukum gaayata shukr euh, li mutabaatikum maana fi barnamijikum tafsirul ahlam euh, ñu di leen sant di leen gërëm ñaan yàlla ngeen xam ne ñu ngi ànd ak yéen fu ñu mën a ne di leen fàttali it ne numéro yi mooy 66 88 628 04 05 wala ngeen ànd ñun 88 628 cinq 65 65 mbokk yi balaa ñuy ànd ak euh, numéro yi ci téléphone yi dañuy ñëw ci bataaxal yi nga xam ne fekk nañ ko fii euh, seeni borom yónnee ko di ko laaj bëgg ñu indi ci ay leeral di xaarandi askan wi ci numéro yooyu euh, mbokk mi nee dafa gént gént koo jaaxal muy laaj ma bayaanu zalik kii neen dafa gént dugg ci biir ndox lap ci biir waaw ñu jël ki ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah allo allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ bi ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi lay déglu ziar. ana waa kër gi. man dama amoon gën di ma bëgg a firi. waaw bisimilah. waaw man dama gën doon aw boo jullee fajar ma tëdd. Mm-hmm. waaw. léegi ma tëddaat rek ma génte benn doog fekk ma ci fu ma tëddi mhm. daa mel ni itam comme ça maanaam ci médecin médecin médecin ab am ndox waaye nag nekkul ci biir biir médecin bi. Mhm. ci suuf ci suuf suuf daa tëddi ci médecin bi rek ci suuf daa tëddi nii rek fekk fekk ma ci foofu rek mu mu mu may ñaawal daal maa ngi si waaw mu may ñaawal. dof bi. lé waaw léegi nag man waxuma ko dara waxul dara waaye mu may ñaawal rek ma sax ma mer ma jóg. su ma jógee rek moom mu daw. DSM mm-hmm. gént bi itam boobu itam demaati doon guddi. Mm-hmm. après ma mel ni comme saaru jigéen nii daal ñu toog ci benn kër comme saaru àllu nii waaye ci biir ñax la. Mm-hmm. ma dem ba sori ñax bi ma mel ni ku jonkoon foofu ci ñax bi jigéen ñi jóg di ma di ma kul waaye man kóolu ma leen damaa génn ma dem. waaye léegi ma topp yoon bi ma dem. waaw man dama dem rek waaw. waaw. léegi beneen gént bi. ci biir biir sapp la sapp bu ñuy bay sapp la. ah. damaa gëntoon ci biir sapp. ci biir. maa ngi gëntoon ci biir toolu sapp xam nga sapp tool. ah tool. waaw toolu sapp sapp sapp coton bu ñuy bay toolu coton. waaw. léegi man nekk fa man ak sama baay ak sama rakk waaye nit yu bëri dëkk fa nag léegi ñu ngi bay comme ça léegi sama tool la waaye tool bi dafa yaatu lool foo fekkee mu ngi waaye dafa naat nag. Mm-hmm. waaye ñu nekk fa nag ñoom ñu ngi mm-hmm. mm-hmm. bi. nag naat na lool moom boppam tool bi nag naat na lool moom. tool bi toolu lan la. toolu coton xam nga waaw sapu sapu toolu toolu. waaw xam naa. waaw loolu la. Mm-hmm. waaw léegi ñetti gént yooyu daal laa géntoon. kaw mm-hmm. ma jaaxal tuuti nag. danañ ci ñëw léegi di guddi nag di guddi nag gént naa itam ñaari fas benn fas bu góor ak benn fas bu jigéen fas yooyu konku la. Mm-hmm. waaye fas bu góor bi dafa teg ci fas bu jigéen bi après nit yi bari ñu ngi ko wor nag taxaw di leen kool di leen fas bu wàcc jigéen bi ba mu wàcc. ñu ngi bari ñu ngi xool benn fas bi ma jël ko beneen jël ko yóbbu ko. Mm-hmm. waaw mu nekkee ñu ngi si gerte daal laa gën ko. baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah. ñu jël keneen ki ci ligne bi. allo. Euh, xam naa ne allo. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. sàng bi ñu ngi lay ziare bu baax a baax. yal na yàlla nangu ziar alhamdulilah. ñu ngi rafetlu taxawaay bi di ñaan sunu borom guddal fan yi. amiin yaa ilaahi amiin. Ah, dama amoon gént gu ma doon laaj. Mhm, bisimilah. gént gu ma doon laaj. waaw bisimilah. allo. allo waaw bisimilah. waaw dama amoon gént gu ma doon laaj. waaw bisimilah ñu ngi lay déglu. waaw dama mosoon a gént xaw naa yàgg nag lool. Mm-hmm. ñu ma gént ñu ne ma am nga ñaari doom. Mm. waaye waaye kenn ki su amee fukki at juróom-ñett day génn àdduna. day doon day am boobu ñaari doom rek la am. Mm-hmm. waaw boobu léegi nag xaw naa yàgg te mu xawoon naa jaaxal ma ko laaj daal daf may xaw ma bëggoon ma ci leeral. ñu ne la benn bu amee fukki juróom-ñett day faatu. ñaata at fukki at ak mm-hmm. waaw. waaw waaw. baax na dinañ ci ñëw léegi. baax na jërëjëf. jël keneen ki ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam asalaamaaleykum ngeen di ziar. yàlla yàlla nangu ziar sëñ bi. na nga coono. alhamdulilah. man de dafa ma bëggoon a laaj daal waaw bisimilah. des fois daal damay faral nekk ci biir géej mel ne damaa mun nekk ci montagne ndox yi ndox mi wàcc ma pour ma génn ma ma am fu ma jàndal ma bëggee dem am problème trop daal ci biir géej gi trop trop trop rek. loolu nag dama ko génn dama ko génn trop daal. Mhm. ñaareel ba itam dafa am sama benn mbokk bu feebar. mais bari na damay génn aussi euh, mu mu mu mu mu wér. Mhm. loolu aussi daal bëggoon bëggoon si ay ay leeral. Mhm. ñetteel ba itam damay faral di génn ak sama kër ma ñëwee bu di ko dugg si ne ma ngi tàkk nit ñi daw fii ban faram ak lakk lakk la. ak lakk. daal. ñëwaat dugg dugg am kër bu ma dugg daal ñu ne fii day lakk des mu nekk sama kër des fois aussi. mu nekk feneen daal ci ñëw léegi incha jël keneen ki ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maaleykum salaam sëñ bi maa yàlla nangu ziar. allo. bi. waaw antenne bi antenne bi jàll dama gént benn gént ma xaw a jaaxal. Mhm. waaw dama feebar lu yàgg mat na at sax. kan maa feebar yow. waaw sama bopp bi day métti rek bañ a bàyyi daal. Mhm. mais gént bi dama gént sëñ Moutala sëñ Moutala Mbacke. Mhm. waaw mu ne ma mu indiqué ma benn garab. waaw mu ne ma ma baxal ma koy baxal di ko naan garab bi mooy garab. xaw ma minéral lañ koy xaw ma garab kër yi nekk ci kër gi léegi di remplacer niimaa yi. waaw. mais leneen li ma jaaxal def maa ne. Mhm. allo. waaw. waaw mu ma feebar bi dugg loolu la ma wax. Mhm. waaw mu ne ma itam après ma gis mu tëj ma ji benn kees ak ci ma waxoon mu wutal ma garab bi. Mhm. mu taal kees bi après kees bi di tàkk di tàkk safara bu baax. bon gis naa keneen ki keneen ki génn ci kees gi keneen ki moo waroon wutal garab bi mais man man génn ma génn ma ci kees gi li muy tàkk noonu. kan moo la def ci kees gi. ki moo waxoon mu wutal ma garab bi ak man. yéen ñaar yéen a nekk ci biir kees gi. waaw mu taal ko muy tàkk après am na keneen ku jigéen ku génn ci kees gi tam mais man ak ku góor gi tam génn la ma mm-hmm. gis mu bind la deux mille vingt deux moom sëriñ bi mu bind deux mille vingt deux ci suuf. loolu la après ci la ma ne feebar bi du wër. kan moo bind 2022 sëñ bi. moom moom sëñ bi waaw moo ko bind ci suuf doon wax ak ku moo waroon wutal garab bi. Mhm. waaw mais moom bi mu paree def maa daal kii bi du wër daal feebar. Mhm. Mhm. waaw d'accord. dina ci ñëw léegi incha allah. Euh, ñu jël keneen ki ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. waaw soxna si ñu ngi lay ziyaara. alhamdulilah. bisimilah. waaw amoon kii gént yi ma doon laaj. Mm-hmm. Mm, damaa géntoon. Mm-hmm. man ak ay nit. Mm-hmm. ñu mel ni dañu taxaw di séntu ci kaw asamaan bi. mu mel ni. ñuy séntu. da di. ñuy séntu ci kaw asamaan bi daal. kii léegi biñ ma nee xoolal ci kaw. Mm-hmm. ci kaw asamaan bi damaa gis comme gëstu naa di rek di xool ñu ni ma sëriñ Saliou mooy romb noonu. Mm-hmm. léegi mais bi ma gëstoo gisuma sëriñ Saliou beneen ñaari sëriñ yu mag laa gis. Mm-hmm. mu mel ni dafa am ay làmp yu nekk seen ginnaaw foofu dafa leer comme ñaari làmp ku nekk làmp nekk sa ginnaaw. léegi man ma mel ni ku tiit may naan laa ilaha illallah. Mm-hmm. mu jaaxaloon loolu bëggoon leer beneen bi dama géntoon dem ci daral daral bu ñuy jaay ay kii gàtt. Mm-hmm. maag sama mag bu góor. Mm-hmm. léegi bi demee ma ne damay jënd kii béy. avant may waxaale pour jënd mais foofu dafa kii ay suuf kese la suuf bu set am ay sàkket nii. Mm-hmm. léegi avant may jënd léegi sam léegi ma gis ko gis sam papa mu ne ma booy jënd de béy bi baax na mais béy bi béy bu kii la bu xonq la mm-hmm. am benn rëdd bu kii bu bu ñuul ci kii bi côté kii bi génn bi mm-hmm. comme ci colonne vertébrale mu am lu ñuul léegi mujjee naa ko tey léegi gisatuma papa kii te dafa génn àdduna moo tax. béy bi nga jënd bu xonq la wala bu ñuul. bu xonq am lu ñuul ci kii ci kaw. Mhm. waaw loolu laa ci ñëw léegi incha allah jërëjëf ñu jël keneen ki ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum sëñ bi ñu ngi lay ziar. ah na jamtaan nu gàlle wadi. ma jaawani. Maodo ma alhamdulilah. alhamdulilah rek Allah. yettude Allah. enɗeɗo koyɗel gotel mo jinnaami haalande ma gotel ngo min danño wuro nayi min ndenno wuro nayi pour nayi min ndenno mi anndi mi anndi allo waaw so waawi ruttaade téléphone en jene kenen kicito salamu aleykum assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah yal na yàlla nangu ziyaar bismillah alhamdulilah ah, dama ne dafa gént bëñ neewu mhm. mel mu gént bëñ bëdi bëdi ñaari bëdi ah, ñaari bëtam waaw mhm. nag du mag du mag loolu daal seet yu tegal mhm. daal bi bëggoon xam baax na dinañ ci ñëw léegi. Ah, ok jërëjëf euh, ñu jël keneen ki ci ligne bi incha allah ànd ak yéen allo. bisimilah sëñ bi. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. damaa amoon bi dama gént ci mbooloo. waa da nga da ngay wàññi. télé bi tuuti ñu déggante. waaw wàññi naa nekk ci mbooloo. waaw ñu wër Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. Mm-hmm. allo. waaw. waaw man dama gënt ñu nekk ci mbooloo. waaw. ñu wër Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. Mm-hmm. léegi muy mm-hmm. man 150 la ma jox man mu jox la cent cinquante. waaw mu jox la cent cinquante sept. cent hmm. waaw moom laa jàpp ci génn bi. cent cinquante sept. Oh, waaw waaw. léegi beneen bi. Hmm. dafa am concours bu ma def mais dama bëri di jënd. Hmm. Euh, di dem daal fekk ma tardé. mu war a defi concours daal gént di tardé. waaw boobu ñaar bi. bëggoon naa sa numéro waaw bul coupé waa régie dinañ la ko jox léegi ci yoon bi. balaa ngaa waaw ñu jox la ko. waaw am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu jël ko te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah allo. allo. waaw bisimilah sëñ bi ñu ngi lay ziar. waaw bisimilah. waaw damay. kii daal man kii daal waaw. waaw daa am ma bëgg a laajte. waaw bisimilah. waaw maanaam damaa gént damaa gént maanaam euh, sama karaw bi daal saa bu ma raayee nii rek du génne karaw mais day génne day génne loolu su ma raayee euh, ay ay wëñ yu yu bari couleur yu bëree bëri lay génne. ay wëñ ma essayé ko benn yoon ñaari yoon toujours daal ay kii yu bëri lay génne ay ay couleur yu su ma nee nii rek euh, daal jëmale ginnaaw mu topp ma génne ay ay ay wëñ yu bëree ay couleur. man dama ñu yàgg maay aadoo may sentir nag mu mel ni léegi dafay génn boobu yëpp ci bopp bi. Mm. maanaam di jëm kaw di may di jëm kaw. foofu laa ko laajee moom laa ko doon euh, kii nga xam ne ki ma nekk ma jox la ma nekk. allo salaamaaleykum. maaleykum mm-hmm. salaam wa rahmatulah. waaw man dama doon laaj damaa gént euh, suma doom ma gént si suma biir saal bi am benn gaynde bu ñëw fës ko. te goom du góor wala bu jigéen. jigéen waaw. Mm. ma génn fi ma dëkk nii la mais damaa am benn garab bu mag bu mu boo xamante ni dafa siñ sama fenêtre bi taw. Mm-hmm. léegi ma gént gaynde gi ci kaw garab bi la jógee rek. Mm-hmm. ñëw këf sama doom bu jigéen bi. Mm-hmm. mel ni dafa tourné moom ci beneen côté bi rek cëppeel ko. léegi xale bi di yuuxu yuuxu yu metti ma ne muy gaynde gi këf na sama doom. fi may waxee loolu rek mu tëppee mu tëppee laa ko ci beneen côté bi. Mm-hmm. affaire boobu nag jaaxal ma loolu. ba pare damay gént bi faral di def yaramu neen lu bari may laaj saraf bi lan la. Mm-hmm. waaw. dinañ ci ñëw léegi soxna si. incha allah. Eh, ñu ñëw ci bataaxal yi nga xam ne. fekk nañ ko fi seen eh, yéen seen borom yéen nekk fa bëgg ñu indi ci ay laaj waaye dina xamal ne tey suñu mbokk suñu xarit suñu collègue Ablaye Ndiaye eh, waroon na fee teew ñu ànd ak moom waaye dafa am ndok ndok am empêchement moo tax mënul teew waaye incha allah di ngeen ko gis ci àjjuma bi di ñëw soobee yàlla incha allah eh, ñii ñëw ci laaj bu njëkk bi mbokk mii dafay laaj laaj bu ko jaaxal mbokk mi neen dafa gént nit ku wéré di di ko kokkali di ko ñaawal euh, su song ñëwee mere song bu ñëwee du ko fa fekk ida raayta rajulan naaqisa al aqli fi lxulmi wa huwa yastaziuka fi lxulmi fa fihi xayrun azim soo gisee nit ku wéré di di la kokkali yiw la su la dóoroon yiw la su la songee yiw la su ngeen saafante yiw la soo ko joxee loxo yiw la xayrun wa niamatun yaati ilayka xéewal mm, bu mag mooy ñëw ci yow na nga ko bàyyi xel ci ku wér di kooku beneen bi nee dafa gént di dem ci àll bi ne ay jigéen di ko xool di ko ree lu baax la ndax al euh, ab daxku fi l xulmi inda nisaai euh, ab daxku yataxayyar faraxan wa surur anhu ree biñ lay ree noonu day soppali ku nekk yiw ci yow nekk mbégte mu yaatu ñaareel bi it baax na euh, beneen bi ci tegu nee dafa gis tool bu ma tool boo xam ne bii tool bu mag la boo xam ne moom moo ci nekkoon ak papaam ak benn rakkam ñuy béy coton ñuy béy wëteen euh, xiraasatul xotni maa fil xotni xayrun al xotnu fil xolmi taabun wa mashaqatun wa suubatun adida fi xayaati al insaan gént di e, bay coton baaxul looy yootu day jafe loo yaakaar doo ci gaaw a jot loo yor mu tas sa loxo yàqu mooy alkotnu muy coton sawaa an da nga koy bay wala dañ la ko may wala da nga koy jënd wala da koy liggéey coton daal maa fi la xut ne xayrun coton moom baaxul waaye lañu sopp na nga togg ay ñam yu sell soo gisee jafe-jafe ci gént nga togg ay ñam yu sell nga woo ay jullit sa kër jox leen ko li wajhillaahil karim bi niyatil xaalisati mu ànd ak yéene wu sell te ñam it na sell ñi ngi koy joxe nañ ko jëfandikoo ba yëg ci seen bopp ndax fii ijaabatun min kulli daawa aaju gu faju ci la nekkee eh, beneen bi mbokk mi ne dafa gis ñaari fas bu góor ak bu jigéen ñaari nit seddoo leen kii jël benn yóbbu keneen ki jël beneen yóbbu loolu li muy tegtale mooy wërsëglu buy jóge ci loxo jaar ci loxo ñëw ci loxo mooy alal joo xam ne day jaar ci loxo yi nit jaaraat ci yeneen loxo door a ñëw ci sa loxo yow mi nga xam ne yaa ko gént eh, muy lu am solo ndax fil xisaani xayrun sawaan eh, azakar wal unsa ci diggante fas bu góor bi ak bu jigéen bi eh, beneen bi mbokk mi neen dafa gént doomam ñaari doom la am ñu ne ko sa benn doom bi daal soo amee 18 ans day génn àdduna eh, bu mu ci am ñaari xel nag ndax bu amee 18 ans du génn àdduna te dina fi yàgg te dina wér lool te it ku nara ku yàlla nara baaxee wërsëg la muy nekk nit koo xam ne kii borom wërsëg lay doon ci dundam te it kuy gudd fan lay doon ndax al mawtu fi l xulmi yatagayyaru umran tawilan fi xayaati l insaan deew guddi day soppaliku nekk yiw sawa dañ la ko wax day soppaliku nekk gudd fan sawaan dañ la ko wax wala nga gis ko eh, beneen bi mbokk mi neen dafa génti gis boppam ci géej eh, te li ko jaaxal daal eh, bari na lu ma koy gis gis sa bopp ci biir géej ngay feey wala nga nekk ci biir ndox mi alal la almaau xul naa zalika miraaran wa takraar almaau xayrun almaau yusrun almaau fatxun ndox alal la ubbeeku la wërsëg la su dee da nekk ci biir baax na su dee da dem ba bëgg lab ci biir ndox mi bëgg génn mënoo génn jàppal ne même bu dee lu baax it même bu dee alal ju ñëw ci yow balaa nga ciy jot dana métti dina bari tolof tolof mooy lab gi euh, niñ ci bàyyi xel beneen bi mbokk mi neen dafa gént euh, beneen bi ci topp neen dafa gént benn xaritam boo xam ne dafa wéradi ñu ne ko dina tane loolu mooy ñaareelu gént bi xaritam bi wéradi ñu ne ko di tane gis nga isa marida al insaan fil xulmi Eh, gis nga nit soo ko amee mu wéradi ñu wan la ci gént ne ne dina wér waxuñu ne du wér waaye feebar bi dina ko xaw a sonal tuuti dana tane tuuti daanuwaat tuuti tane tuuti daanawaat tuuti waxuñu ne nag du wér waaye daal feebar bi dina ko sonal dina ko fitnaal dina bari jafe-jafe lool lool ci yaramam mooy nga gént ñu ne la sa xarit bi day wér Euh, beneen bi nee dafa gént ñu du euh, bari loolu du muy gis ay lakk ci biir kër gént ay lakk nag ci biir kër xabar xabarun yaati ilayka sawaan an yakuna xabaran tayiban euh, an yakuna xabaran gayru tayib gis nga yenn saay mu nekk xabaar bu neex mën na nekk bu naqari waaye daal alxariq fi lxulmi gént lakk daal li ci ëpp ci li nga koy gis day soppaliku nekk xabaar bu ñëw ci yow mën na neex ko mën na naqari nag euh, ñu bàyyi xel ci loolu euh, beneen bi ci tegu mbokk mi nag moo ko yónnee di ko laaj euh, mbokk mi ne dafa gént moom gént ku ko jaaxal nee na dafay farataal di am feebaru bopp bu ko sonal nee na mu gis sëriñ Murtala euh, Mbakke euh, rahmatullahi alayhi mu tegtal ko ci garab ne garab gi boo ko jëfandikoo dinga wér muy bu jëkk bi nee na gént na ñu dugal leen ñoom ñaar ci benn kees mu mel ni dafa taal kees gi ba pare nee na gént it mu bind ci suuf euh, nombre deux mille vingt deux euh, li ci bu njëkk bi nag moo bopp buy metti bi dinañ ci ñëw ndax mooy tontu bi mi ngi ci suuf dinañ ci ñëw léegi garab gi nag garab la ndax lépp dafa leer te dinañ ko leeral ba mu leer mu borom xam fan la yëfi jëm gis nga kilifa diine bu la feeñoo ci gént yiw bu bari la aaju gu faju la law kunta fi dayqin shadid donte da nekk ci ay xat-xat da nga ciy génn soo nekk ci wéridi it da nga ciy génn te ni ngay def it ba génn ci wéridi googu moom sëriñ bi wan na la ko euh, garab gi mooy ñaan bi ñaan bi nag dinañ ci ñëw léegi wax la ko ñaan bi mooy ngay liggéey li ñuy bëgg a wax muy ñaan bu gàtt la muy salaamun xawlan min min rabbin rahimin bi nekk ci sóoratu yaasin moom ngay liggéey ci nombre bi nga xam ne bi moom laa la wax ci suuf muy 2022 soo ko defee boo ko farataal di def ci ndox kaasu ndox booy tëdd nga sotti ko ci sa kaw bopp di nga ci am ndimbal ci bopp boobu di la sonal di metti saasu ne muy salaamun xawlan min rabbin rahim jox na la ko jox garab gi mooy aaya bi euh, nombre bi mooy deux mille vingt deux bi nga xam ni moom la la jox nga bàyyi ci xel boo ko defee di nga ci am shifa ala kulli xaal euh, gis nga lii mooy tegtale na ne euh, gént goo gis rek mu ñëw bul ko xeeb bul ko oyofal laajte ko ndax daraa ngi ci boo xamul di nga gis ñu la ñu la ci tane ñu mën la ci génn nga jëriñu ci Euh, beneen bi ci topp mbokk mi neen dafa gént moom it gis ay nit ñu bari ñuy xool ci kaw asamaan si wala boog ñu am lu ñuy séentu ci kaw asamaan si mu mel ne dafa gis sëriñ Saaliw ak yeneen i sëriñ ru'yatu shuyuux fil gis nitu yàlla fii barakatun wa fiihi yusrun wa fiihi xayrun wa fiihi ijaaba min kulli daawa gis nitu yàlla daal ci gént yiw a ngi ci aaju gu fajoo ngi ci euh, xéewale ngi ci lépp ngi ci biir nañ ci bàyyi xel nee na gént yi dem ci benn barab bu ñuy jaayee ay xar ki béy nee na mu mel dafa gis papaam bi nga xam ne bii dafa génn àdduna ñëw ne ko jëndal béy béy bi nag nee na bu xonq la waaye ci suufu geen bi dafa am lu ñuul béy guddi ay coow yi sew la baaxul bay guddi dina indi coow ci biir kër bay guddi dina indi ñàkk déggoo ci ay nit bay guddi dina tax boo dee liggéey ci service wala ngay nekk ay nit wala sa wala boog nga nekk ci sa biir kër walla ngay liggéey commerce wala leneen loo mën a liggéey day indi suu tafaahum baynaka wa bayna naas li ci bari day indi ñàkk déggoo sa diggante ak ay nit wala ay coow yi sew mooy béy gis ko baaxul nañ ci bàyyi xel jënd ko it du lu gën Euh, beneen bi ci tegu mbokk mi nee na dafa gis doomam boo bi daal bët yi day gën di rëy rek maanaam day gët yi day gët yi day gën di ubbeeku mu jaaxal ko lool euh, gis nga soo amee sa doom ay bëtam di gën a ubbeeku mel ni day gën di neew yi wala muy gën di yokku doom jooju sa màggee bay tollu fenn xel mi day nekk ci dem rek bëgg di dem di tukki di dem fu sori dëkk bu mu demee bu fa yàggee day bëgg demaat ci beneen dëkk yuridu safar min baladin ila baladin aw min madinatin ila madinatin eh, day bëgg di tukki jóge dëkk dem dëkk wala jóge réew taax jëm réew taax mooy bët yi yokk mu mel ni boroom ay bëtam day yokku di néew yi Euh, bari aana lu ko nit di yaakaar ne xeej na euh, wéri di yaram la wala déedéet walla yooyu te bokkul ak loolu ñu bàyyi ci xel bu baax euh, beneen bi na mbokk mi ne dafa gént gis boppam ci mbooloo mu bari ñu wër ko mu gis ci Cheikh Ahmed Tijani al Maktoum mu jox ko nombre cent cinquante sept Euh, almaktum gis ko yiw la euh, ru'yatuhu fihi xayrun wa fihi yusrun wa fihi fatxun wa fihi ijaaba min kulli daawa gis ko yiw la euh, kooku moom la maamam daan wax naan nu mu ko waxati woon ca ca ca ca gaal ga ba yëf yee mettee ba metti Euh, moo waxoon baytu bu mag ba tëgg ko ba génnee ci ñamu àndaloon ca béréb ba euh, dinañ ci ñëwaat léegi ci kanam tuuti incha allahu kon ñu bàyyi ci xel euh, mbokk mi nee na dafay laaj ginnaaw bu ko gisee ba pare nombre bi nombre lan la xam naa ni nombre bi mooy li ko gën a soxal ci mbir mi 157. da ci bàyyi xel ndax nombre la boo xam ne bi dafa jar a bàyyi xel euh, li tax ñu ne dafa bari jar a bàyyi xel nombre la boo xam ne bi baax na ci nit di ko def ci salaatu ala bi ci ñetti waxtu waxtu bu jëkk bi mooy nga def 157 ci salaatu ala nabi balaa jant bi fenk su jant bi fenkee ba nga julli tisbaar nga defaat 157 salaatu ala nabi su jant bi demee bay waaju dugg te duggagul euh, nga defaat cent cinquante sept ci salaatu ala nabi muy ñetti waxtu bi ko ñeenteel mooy diggante minuit une heure euh, nisful layli nga defaat cent cinquante sept ci salaatu ala nabi muy ñeenti mbir yoo xam ne yi euh, kooku nga xam ne gi mooy almaktum muy Cheikh Ahmed Tijani Euh, ki maamam doon wax naan fala budda min shakwa ilallahi kurbati fa maaliya xayra allahi jaabiru kasrati wa qariya baabal xayri yallahu lam yufit lizaaka sarafna nahwa baabika wishati kooku bu la boo ko gisee ci xaal bu mel nii jàppal ne al ishaara takfi li man ànqala junju doy na borom xel euh, ñi ñëw ci beneen bi ci topp Euh, mbokk mi ne dafa gént saa yi def examen rek day tardé saa yi def examen saa yoo tardé rek boo moytuwul examen bi ngay def yàlla dina ci def xéwal wala bu ci defal xéwal it beneen bu ci topp dina ci def xéwal mooy tardement tardement nga tardé baax na nga gént ñi ne la sa examen bi du baax doo am yiw la ñaar yooyu bés boo ci gént rek amal yaqiin amal yaakaar ci ne yàlla dina faj sa aajo ci zaahir ak ci baatin eh, beneen bi mbokk mi ne dafa gént kawaram mu mel ne ay wëñ moo ci génn mu jig wëñ yi bari lool wëñ yu bari bu génnee ci ci bopp nit mu am ay couleur yu bari baaxul loo gën a jëm mag say jafe-jafe di gën di bari loo gën a jëm mag tolof tolof di la gën di jege loo gën a jëm mag wéri di di la gën di jege mooy wëñ yu bari yooyu nga xam ne benn bokk ci ak sa morom couleur te génni sa biir bopp baaxul waaye ñu ngi koy digal daal su ma nee euh, mu fexe dem ci ku ku mën a jàng ku xam alquranul karim ku miin alquranul karim mu bindal ko li ñuy bëgg a wax muy aaya bi nga xam ne ni moom la bëgg a wax ni mu bàyyi ci xel muy bismillahi rahmaani rahim wa indahu mafatixul xaybi laa yalamuha illa huwa wa yalamu ma fi lbarri walbahr wa ma tasqut min waraqa illa yalamuha wala xaba fi zulumaati l ard wala ratbin wala yaabisin illa fi kitaabin mubin mu di ko liggéey ci nombre 66 di ci ñaan yàlla yàlla na ko yàlla teggil yooyu la xat-xat eh, tiilata xayaatihi ci li ko des ci dundam mu di ko def nag nisfu layli ma bayna diggante min wi ak une heure mu bàyyi ci xel euh, beneen bi mbokk mi neen dafa gént euh, mu mel ni dafa am benn gaynde bu ñëw këf doomam yóbbu ko yóbbu ko dal di koy teg ci beneen wàll mu jaaxal ko loolu mooy laaj bu njëkk bi gaynde bu këfee sa doom santal yàlla te xam ne euh, xéewal moo këf sa doom waaye gaynde këful sa doom ndax gaynde bu këfee sa doom yiw la yiw googu këf sa doom nag allahu alam wan waxtu la ko yiw googu di dikkal bu ko dikkalee doo ci mer di nga ci kontaan sa xol dina ci sedd moom it dina ci am yiw bu bari kon këf gi ko gaynde gi këf yiw lay jur ci moom sawa an bu gaaw wala bu yéex waaye na ci bàyyi xel euh, beneen bi nee na dafa gént lu bari def yaramu neen euh, yaramu neen guddi wax nañ ko Euh, yaramu neen guddi wéere di yaram la feebar lay lay dikkal baaxul yaramu neen wéere di yaram la moo gént saxaar su bari su amul tàkk-tàkk kilaahuma ala xaddi sawaayi maradun fil jismi wéere di yaram la nañ ci bàyyi xel ala kulli xaal euh, muy laam sunu mbokk yi lii moo fi ñëwoon ci ay laaj ñu daal di ubbi waa téléphone yi waaw ñu ubbi téléphone yi jëlaat ñaar wala ñett bu fekkente ne am na ñu nekk ci ligne bi Euh, salaamaaleykum wa rahmatullah allo allo euh, kat allo waaleykum salaam wa rahmatullah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah alhamdulilah sant yàlla waaw man dafa am benn gént bu ma bëggoon leerlu waaw bismillah dama géntoon tëdd ci kaw lal man ak sama soxna léegi mu am mu ma seetlu am benn fas bu nekk ci biir néeg bi tëdd ci suñu wet. Mhm. ñu ngi tëdd ci man laal mais moom mu ngi tëdd ci suuf benn fas. benn fas. waaw léegi bi ma jugee ba ba duggaat ci néeg bi fekk fekk fas bi dama ko daan may dama ko daan may lekk toujours. Mhm. léegi ma dugg rek fas fas bi jug ma ne ko ah baal ma de dama la fàtte may lekk. Mhm. léegi après moom tam daf ma tontu mu ne ma garaawul. Mm-hmm. loolu laa bëggoon xam leeral. nga ko baal ma da nga ko fàtte may rek mu waaw mu ne ma garaaw. Mm-hmm. léegi li may jënd itam di lekk ay laax wala cere yi day bëri ma bëggoon xam tam loolu nu lan la. ngay lekk lan ci. may lekk laax wala cere yi cere ak meew. Mm-hmm. waaw dama bëggoon naa leer loolu beneen beneen gént cere ak meew. waaw cere ak meew. beneen beneen gént bi dama dama dama taxaw ci benn kaw miir. Mm-hmm. benn benn kaw miir léegi euh, am benn soxna su nekk ci suufu miir bi nii. Mm-hmm. benn xale jigéen léegi ñu ne ñu kii comme ni koo xam ne day day dafa aay quoi nit ku lekkaati daal. Mm-hmm. léegi après ci laa may jàng ayatu kursi bi bu ma déggee loolu après may jàng ayatu kursi bi. waaw loolu laa bëggoon leer la. benn rab bu nekk foofu. nit nit la nit. Mm-hmm. benn jigéen mais nee nañ nit ku aay la quoi nit koo xam ne day day day comme dëmm daal li ñuy wax dëmm. Mm-hmm. waaw après ci laaj bi may jàng ko fii. Mm-hmm. loolu laa bëggoon leer la. ci ñëw léegi incha allah. allo salaamaaleykum wa rahmatulah. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam allo na ngeen allo. allo bisimilah waaw. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. man de dama fi amoon benn gént bu ma bëggoon laajte. Mhm. bisimilah. allo. waaw ñu ngi lay dégg soxna si. waaw dama fi géntoon benn gént bu ma jaaxal. parce que bu ma mhm. géntoon maa ngi nekk si benn lu mel ni bitik. Mhm. may may dem ak moom ma taxante benn nit ma xeex ak moom pour may xeex ak moom. am na bi mu yore woon rek ñu ñu ñu ñu doon xeexal ni ñoom góor góor la wala mu bëgg ma koo dóor rek mu jël ko nëpp ko ci bopp bi. Mm-hmm. ba mu najee mu ne ba na. Mm-hmm. ba mu dee dee tàq ma dem ba léegi nag mu génn tiit après ma dem ba ci yàgg ma dellu si waa fekk benn góor muy toog ci diggu diggu benn saal. Mm-hmm. ma romb ko ma ñëw toog ma ne ko damay seeti kii ñu xool ndax dee na ndax dee na ma ne ko am nga loo ma am nga loo wax da ngay nekkal foofu di reetaan di nga reetaan ba sonn ma génn la ñuy fekk bu tëdd ma ne ma ne leen waaye mm-hmm. ma ci topp julli di julli di julli guddi. Mm-hmm. waaw. gént di julli. ah. ma ne gént di julli. waaw gént di julli waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. baax na. d'accord waaw kay jërëjëf. jërëjëf dinañ ci ñëw léegi incha allah. waaw bisimilah ñu jël keneen ki ci topp salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam. Euh, soxna si bisimilah. waaw man de dama gént di génn àdduna. man hmm? kon dama gént di génn àdduna. Hmm. mais damay suturaat. Hmm. après su dee suturaat bi nag maa ngi tudd yàlla lu mu mën rek maa ngi tudd yàlla. Hmm. damay jël tamit di nekk si bàmmeel bi di tudd Allah daal mel ni su ma lekk. nga nga nekk di tudd yàlla. waaw nga tudd yàlla lu bëri. Hmm. waaw noonu di tudd yàlla. damay jël tamit nekk si bàmmeel. beneen beneen jël tamit ay dof ndox ndox ah ndox ndox ndox waaw kii mm-hmm. waaw beneen bi tamit dama gént benn bi ci Touba ah. mm-hmm. mu ànd ak yeneen maara ma dama xaw a fàtte mm-hmm. léegi ah, pour boo après léegi ay mbooloo ay. ay dëgg la kay. waaw yaa rabbi amiin jërëjëf. Uh-huh. waaw su ko defee ñu ñëw ci laaj fi seeni boroom yónnee léegi bëgg ñu indi ci ay leeral mbokk mi ne dafa gént uh, tëdd ci lalam moom ak doomam mu am benn fas bu ñëw tëj seen wet. mu ñaar di ñëw ne ko na ko jéggal parce que da ko fàtte jox ndox mun fas yu ne ko garaawul walla boog da ko fàtte jox lekk fas yu ne ko garaawul eh, noonu la ko gisee eh, fas foo bi tëdd ci kaw lal bi du fas soxna la eh, dangay am soxna donte am nga soxna allahu alam soxna bu gaaw la bu yéex bu ñëw taag séegul waaye daal tëraayu fas yu ci kaw lal bi soxna la allahu alam bu gaaw lay doon wala bu yéex na ci bàyyi xel euh, beneen bi mbokk mi neen ba tey neen dafa gént di lekk cere ak meew ak laax ñett yëpp baax na lekk laax gi yiw la lekk cere ak meew yiw la xataa nag doon na gën a baax boo ko génnee woon sarax lakaana xayran doon na gën a baax beneen bi neen dafa taxaw ci benn miir gis fa benn jigéen yoo xam ne jaay neen jigéen ju bon la muy jàng ayatul kursi yi Eh, gént di jàng ayatul kursi yi baax na eh, gént it jigéen joo xam ne dañ la wax bon na min umar min min min shayatin ci mbiru seytaane la bokk ngay jàng ayatul kursi yi it wàññiwul dara ndax ayatul kursi yi gént di ko jàng guddi xijaabun mastur fi xayaatil insaan dalay lay aar da sàmm eh, beneen bi mbokk mi ne dafa nekk ci benn bitik nee na mu gént di xeex ak benn jigéen mu dóor ko ba men daal kooku dafa génn àdduna euh, gént di xeex baax na gént dóor nit mu tëdd baax na ndax alxitaal euh, alxitaal bayna al marati wal marati yetagayaru faraxan wa xayran fi ma baynahuma xeex bi xewal bu ñëw ci seen diggante la tekkiwul ne da ngeen di xeex nañ ci bàyyi xel nee na bari na nag lu muy gént di julli alsalaatu fi lxulmi ida kaanat kaamila fa fiha xayr wa in lam takun kaamila fa ma fiha xayr julli guddi moom bu matee baax na su manqué am ay dagg-dagg nag baaxul euh, nañ ci bàyyi xel beneen bi ci topp mbokk mi ne dafa gént euh, mu mel ni dafa génn àdduna nekk maa baynal xayaati wal mawt euh, ka annaha fi sakratil mawt wa ka annaha turidu turidu raxiil ila jiwaari rabbiha ne daal dafa bëgg génn àdduna ah, sakaratul mawt nekk ci maanaam sukuraat dafa am solo ndax du sukuraat alal la joxam ne bu ñëwee dina bari ci sa loxo ba nga ci sédd say am di jàmm muy mel ni dañ la wax ne dangaa nekk ci sukuraat wala dangay ngay waaj a dee eh, zikrullah dafa am solo tudd yàlla ci gént baax na ndax ala bi zikrillahi tatmainnul qulub ndax Eh, tudd yàlla ci la xel yi dale aaya bi wax na ko beneen bi ziyaara eh, nekk ci ay bàmmeel eh, bu fekkente ne da nga ñëw pour ziyaar leen ñaanal leen baax na waaye su fekkente nga nekk ci biir bàmmeel baaxul su fekkente ne nag da nekk ci biir armeel di ko bale ak di ko toppatoo baaxul yooyu yëpp bu ci nekk taabun wa masaqatun wa diqun shadid beneen bi nee na mbokk mi neen dafa gént ci Ahmad Bamba mu gis ko mu ànd ak ñeneen yéeg fu kawe leer gi topp ko ru'yatu Cheikh Ahmad Bamba kul naa zalika miraaran gis Cheikh Ahmad Bamba ci aaju gu faju la ci zahir ak ci baatin sawaan moo xam danga ngaa wéri di da ngay wér moo xam da nekk ci ñàkk ñàkk gi day deñ soo nekkee ci tolof tolof day deñ soo nekkee ci xat-xatit day deñ borom xoqal bukaau ala saadatil amwaati tabkil aradi alayhim ka samawaati gis ko yiw la ru'yatuhu fiihi xayrun wa yusrun fatxun nañ ci bàyyi xel beneen bi nee na dafay laaj eh, mbokk mi nee dafa bari lool di gént di nekk ci mbooloo gént nekk ci mbooloo baax na aljamaatu rahmatun mbooloo yërmande la nañ ci bàyyi xel eh, mbokk yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla jàmm di leen jégalu ndax xat-xataayu waxtu bi moo ñu xaw a dab tuuti ñu jégalu lool lool lool ci xat-xataayu waxtu waaye lépp luñ ci manqué incha allah ajuma bii di ñëw Euh, ñaan nañ yàlla mottali ko di ziyaara suñu kóllëre bi nga xam ne mañ fi daan toogal saa su ne ci waxtu wi muy Abdoulaye Ndiaye xam naa ne ajuma bii di ñëw di ngeen ko gis euh, di ziyaara Adja Soxna Ba ci Tëngéej di ziyaara Mati Ba ci Tëngéej Malick Ba Adama Ndiaye Ndeko Fall ak borom këram Adama Ndiaye ñu ngi leen di ziare di ziare ñoom Adja Thiané Fall Mansour Sall maam lii sun ñoom ñëpp waa famille Chawi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara euh, di ziara Ndeye Ba ci Dakar ak borom këram Cheikh na di leen ziara di ziara ba tey sunu xarit sunu kóllëre Rose ci France ñu ngi koy ziara ak euh, njabootam euh, di ziara Bachir ca Mauritanie ak ak Sarr ca ak soxnaam Thiané Diagne ñu ngi leen di kéemo kéemaxo jaxa bi ñu ngi koy ziar alaaji jaxa bi di ziara maxataal ci itali ak njabootam roqeetu taal ñu ngi leen di ziar di ziara ba tey as ñang ca Pointe noir ca Congo ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara euh, di ziara ba tey Mujibulay commissaire ñu ngi koy ziara di ziara sunu kóllëre Mouhamadou Mbaye Medina mbay Euh, di ziara ba tey alaaji Malick Kay rek euh, États-Unis North North Carolina ak soxnaam Ndeye Fatou Samb ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara euh, di ziara it ñi nga xam ne dañuy bàyyi xel saa ne ci waxtu wi Massamba ñu ngi koy ñu ngi koy ziara ci Louga di ziara ba tey Abdourahmane Mbacké ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara di leen bàyyi xel di ñaan yàlla yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm defal ko Sénégal defal ko Euh, groupe Futur Média yàlla na fi yàlla teg loxoom defal ñu ko defal ko képp ku fi yeewoo euh, ñu ngi nekk ci régie ñu ngi leen di ñaanal caméraman yeeg ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla jàmm yàlla na leen ko yàlla defal defal ko képp ku yeewoo ci béréb bi allahuma rabbi ya ilahi la yantahi ilayka basru naadirin fi majdi jabarutika ilahi irtafaat an sifaati almaxluqin sifaatu qudratika ya allah waala an zikri zakirin kibriya wa azamatika ya allah fala yantaqis ilahi ma aradta an yazdaad wala yazdaadu ilahi ma aradta an yantaqis la ahada ilahi shahidaka xiina fatarta alxalq ya ilahi wala nidda wala didda xadaraka xiina barrata annufus ya ilahi kallat alalsunu an tafsiri sifatika ya allah wanxasarat alcuqul an kunhi macrifatika ya allah fa kayfa yusaf kunha sifatika ya rab ya man qaala li musa idrib bi asaaka albahra fanfalaqa fa kaana kullu firqin ka tawdi alazim salli wa sallim salli wa sallim ala ayni zatika alaliyati bi anwaai kamalatika albahiyati fi xadrati zatika alabadiyati ala abdika alqaimi bika minka laka ilayk salaatan taftax lana biha abwaaba alrida waltaysir wa tuxliqu anna biha abwaaba alcharri waltaasir wa taqdi lana biha jamii alxawaaij wa takuna lana biha waliyan fi dunia walaxira anta ya rabbi anta ya rabbi waliyuna wala tazalu ilahi takunu waliyuna illa an tantahi alxayaatu fa nicma almawla wa nicma alnasir inna allah malaikatu yusalluna ala annabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima salla allahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima allahuma rabbi salli ala sayidina muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin